Ousmane Sonko fi di ba léegi donc ñu waxee génn dem ca beneen rond-point bi mais gis ngeen yow toogal la kew euh, euh, gis ngeen euh, waaw xam naa ne maîtrise naa fi gis ngeen ne kër Ousmane Sonko dañ ko tëj ba léegi kër Ousmane Sonko xam naa ne dama dëkk bi ba léegi problème la oto bu fa jaar dañ naan la dëfal oto bu fa jaar dañ naan la noonu jaaral ci beneen yoon bi gis ngeen comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi sama waa ji moo xaw a ragal rek ah. ah yow da ngaa xaw a ragal moor rek ma dama bëgg dama koy tegal gars moom ñu xam ne ñi internet yi xam ne kër Ousmane Sonko euh, dañ koo tëj ba léegi nii kër Ousmane Sonko moom daanaka ah, mënoo faa jaar euh, ba léegi ñun ñii xam naa moo tax ma gaawantu tourné gaaw euh, xam naa ne sinon tam ñu wax ak ñun parce que dañ naan ñëpp fare nañu ñun pourquoi lu ñuy def ci affaire yi ba léegi mais nee la sa Feeling Dakar fi muy rek naa la sa neexee rek laay jaar nee la ci Feeling Dakar ah, fépp foo xam ne daanaka ah, mi mi ngi am dara ah, dañ leen koy jox a fi nga xam ne en muy en direct fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV mais kër Ousmane Sonko dañ ko tëj kër Ousmane Sonko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko tëj. Ousmane Sonko euh, kër gi dañ ko tëj suma assistance bi lañ ja euh, fi lañ dugaloon Guy Marius Sagna bañ ko jaafee moor wan leen image yi suma suma boobu noonu foofu lañ dugaloon ki nga xam ne moo di euh, Barthélémy Dias Ousmane Sonko fii la génnee woon ci otoom bi yuuxoo pour ndaw ñi fekk ndaw ñaa forcé Ousmane Sonko waaw fi lañ jëndee woon café no fi lañ jaaroon moor nee naa la yoon may jaar yëpp dama ko maîtriser yow xoolal rek yéen yéen xool loon xool leen rek gendarme yi ñu ngi ci rond bi ba léegi Mor tëniral bu baax parce que gendarme yi tam ngi wax ak ñun fixel ma euh, ci Sonatel bi rond point Sonatel bi euh, fa euh, ba léegi Mor voilà gars yi ñu ngi foofu noonu ba léegi jugee guñ fa donc ñu defaat beneen yoon bi nii xoolaat côté boobu noonu mais kër Ousmane Sonko jàpp nañ ne dañ ko brigade kër Ousmane Sonko gars yi jugee guñ fa ba léegi kër Ousmane Sonko gars dem guñ fenn ñu def siège di ca Fass suñu fa jugee kër Ousmane Sonko moom xam naa ne kenn entrée entrée ñu def siège de Jafaam daanaka euh, ñu a euh, fi nga xam ne moo di euh, Déthié Fall fa la nekk mooy siège du Déthié bi Euh, Vorokham euh, daanaka euh, la nga xam ne moo a xew en ce moment parce que gis nañ ne siège Déthié Fall gars yi fa nekkoon jugewuñu fa mais lépp lu fa xew ko turóobu comme information rek incha allah rabi li xew foofu noonu tamit dinaa leen jox comme ni ma leen ko joxee kër Barthélémy Dias joxe leen ko kër ki nga xam ne daanaka moo di ci kër Ousmane Sonko mais lépp lu ci mën a xew rek incha allah rabi dina leen faral di leen koy jox yéen ñi nga xam ne yéen a ngi xel fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar def leen ci boo leen ci def baax na parce que nee naa leen naa la loolu ngeen ñu mën a fayee di partager euh, li ñuy def rond-point bi nga xam ne mooy rond bi jëm euh, Liberté sis mooy rond-point sacré bi policier ñu ko fees dell kon jàppale ne kër Ousmane Sonko entrée beeg sortie bi problème la yeneen pàcc yi euh, problème la fi mu nit war a jaar problème la donc kon Ousmane Sonko ñu ngi ci problème bu rëy rëy rëy rëy la lii buy faral di am tooñuñ Ousmane Sonko kase de tooñ nañ keneen ku dul Ousmane Sonko parce que am na ñenn si ñoo xam ne daanaka ñoom seen yoon nekkul ci manifestation bari na ñenn ñoo xam ne ñu ngi jug pour liggéeyal yóbbu fi nga xam ne daanaka moo di seen i famille daanaka ñoom dañoo nekk ci da nga xam ne moo di as problème bari na ñenn si ñi nga xam ne euh, ñu ngi jéem euh, def pour amal seen réew daanaka ñooñu ñu ngi nekk ci ay problème donc li yëpp di am lenn moo ci mën a am nañ ut apaisement on calme les choses. ñi ci war a wax nañ ci wax te xam naa ne dinañ wax ndax nañ naa li xewoon 14 mars dootu fi amani aman na dëgg la dese yi bariwul mais yàlla na fi yem ñi ci war a wax nañ appuyé yàlla na fi yem ñi ci war a wax nañ ci wax yàlla na fi yem parce que lii nii ñu jugtee ah waxoon naa la ko gars yi ñu ngi siège Déthié Fall PRP dañ ko brigade euh, ba léegi Mor dama bëgg nga tegal ma foofu caméra bi ma koy xool gars yi ñu ngi brigade foofu ba léegi gars yi jugee guñu foofu ba léegi gars yi ñu ngi brigade foofu ba léegi gars yi jugee guñu foofu ba léegi gis nañ ne Déthié Fall euh, moom bokkul ci li nga xam ne mooy dossier bi mais xam naa ne moom sax problème la mais lu ci mën a am moom Yewwi Askan Wi la bokk Déthié Fall lu ci mën a am Yewwi Askan Wi la bokk mais Déthié Fall moom xam naa ne pour mu dugg sax si siège am ah, problème la donc gis ngeen siège Déthié Fall bi nañu ko barricadé siège Déthié Fall policier ci bunt bi la ñu taxaw kenn du jaal kenn du dem kenn du dëkk Mor Mor gis ngeen noonu siège Déthié Fall PRP mi ngi noonu siège Déthié Fall PRP eh, mi ngi noonu gars ci bunt bi la ñu taxaw kenn dugul kenn demul kenn du fi dugg Déthié Fall mi borom siège bi Déthié Fall mi siège parti moom du jàll de Déthié Fall du dem fenn oh non non Déthié tey doo dem. gaa yi ñu ngi taxaw tamit euh, ci rond point bi euh, ba léegi donc ñu continuer euh, xoolaat ci yeneen pàcc bi xoolaat ci yeneen côté yi nga xam ne daanaka fa lay xoyom xoyome xoolaat ci yeneen parti yi nga xam ne daanaka booy ñi fa wala nekkuñ fa incha allahu rabi bu ma mënee dem bala nga xam ne sax moo di ci rond point moo mënee dem fële nga xam ne gis ngeen gaa ñu ngi noonu ci rond point bi ba auto sapeur boobu li muy li muy def noonu merci Mor. Mor gis naa li mel demal demal wanal gars ma lii Mor donc gars yi ah, ah, gis ngeen gars yi seen dispositif bi nga xam ne def nañ ko ñoom ñëpp nee la tey wenn oto desul oto ndox mu tàng yeeg oto yëpp a génn Mor Mor tey ah, ñëpp a génn tey den kenn desul Mor ñëpp a génn oto yëpp a génn <laughs> Mor def du ñu newoon kafe bilaahi billaahi gis ngeen de gars yi ñu noonu def en face fi nga xam ne mooy siège Ousmane Sonko gis ngeen ko comme vous le voyez dans les images siège Sonko tamit gars yi ñu ngi fa fees siège Ousmane Sonko gars yi ñu ngi fa fees dell dell dell dell takk der yi jigéewuñ ci siège bi nga xam ne mooy siège Ousmane Sonko ñu demaat euh, fa nga xam ne daanaka euh, moo di euh, ci fële nga xam ne moo di HLM mu ngi tàng grand dawuñ HLM grand génn ci loolu oh HLM nee naa la yi ciy kenn yónniwu leen de Sonko yónniwu leen Yewwi Askan Wi yónniwu leen APR yónniwu leen Macky Sall leen ñoo yónni boofu dañuy euh, euh, taal ay fourneaux nit ñi buñ leen jegesee kuñ mën a agressé ñu la li wax nii grand dafa ko maîtriser daaw dafa faa daw bay ak daaw dafa faa daw ba sama dënd di métti grand aslem bi nee naa la mën naa laal fenn sab aslem mën ngaa maîtriser fu ne mais aslem mënoo leen maîtriser ay paaka ki peel ki jaase oh grand donc ñun nañu continuer euh, di wane li ñu mën a wane rek mais en tout cas di remercier maa ngi dem a gendarmerie euh, fi nga xam ne moo di foir Oh, xool li fa xew parce que euh, euh, signalé nañu fa bari na ndaw yoo xam ne daanaka jàpp nañ leen fa bari na ndaw yoo xam ne daanaka euh, daf nañ leen lu méttee méttee méttee méttee méttee méttee métti donc ñun nañu continuer rek xool li nga xam ne mën nañ ko jël pour di leen koy jox yéen ñi nga xam ne yéenay samay fidèle internaute nee naa la ici c'est Feeling Dakar fii ñun ñoo ko moom buñ ci wàccee nee naa la kenn dootul nalaw kenn dootul def kenn dootul xool ñun rek ngay topp comme ni ñu ko gaa yi waxee Sonko rek lay topp laay topp yéen Feeling Dakar rek ngeen di topp donc continuer continuer continuer di ñu topp continuer di ñu bàyyi xel continuer di abonné wu fi nga xam ne moo di ci dakaar ba léegi maa ngi topp euh, mbedd dakaar yi di xool fépp booy taaloon gis nañu VDN bi tàngoon na jër jër jër jër jër VDN bi yëngatu woon na mbedd yi fi ci nekk yëngatu woon na may dem. may dem di xool fan fan mooy yëngatoo fan ak fan mooy yëngatu maa ngi juste rond-point bi jëm rond-point euh, bi cité euh, du moins liberté 6 bi gis nañ sànq liberté 6 bi waa ji ah, lacrymogène bi daf ñu ko naroon door oh saa maa ngi wax ak Abdou ah di ko euh, mu may situation bi mu ñuy wax ne université Gaston Berger bu Saint-Louis gars yi jot nañ fa dund lu métti université Gaston Berger bu Saint-Louis gars yi nan nañ fa lacrymogène yu méttee méttee méttee méttee Auchan bu Parcelles taal nañu ko marché na Auchan yi ñu taal bari kon Auchan yi ñu taal bari na lool lool lool lool lool mais Sonatel Orange daa teel a jël matukaayam nañ ko wax oo nañ ko wax. gars yi ñu ci bari dañoo teel a jël la nga xam ne moo di seen ay euh, matukaay. ga am na takk der yu taxaw fi nga xam ne daanaka mooy euh, rond-point bi jëm euh, Liberté si takk der yi ñu ngi taxaw foofu ba léegi ñoom xam naa ne li ma la ko yàgg di waxee rek euh, ñoom du ñu teel a ñibbi ñoom du ñu teel a dem ñun ñu continuer di leen wan rek gis nañ ne gars yi ñu ngi foofu fees a dell dell dell dell dell HLM Saa Sof Grand xam nañ ci dara mais demuñ gënal ci loolu ñu continuer euh, di leen wan euh, lépp li nga xam ne euh, mooy mooy mooy xew ci pàcc yi wala lépp li nga xam ne daanaka mi ngi am ñu leen koy jox fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar maa ngi fi nga xam ne moo di ci VDN bi gis ngeen VDN bi ni mu mel ce matin gis ngeen gis ngeen VDN bi ni mu demee gis ngeen VDN bi yëngatu bi nga xam ne yëngatu na gis ngeen VDN bi ce matin ni mu demee gis ngeen beneen bi commencé woon na euh, neex ce matin euh, booy ñi ngi taal fu ne booy ñi ngi def euh, lu nekk oh, mais man li ma ci métti ba ñuy jàpp Ousmane Sonko rek am na benn kesk boo xam ne gaz moo fa doon tax gis ngeen bis Dakar dem ci kii kii bañ koy taal gis ngeen fi nga xam ne daanaka fa la sax kii nii bi safara si doon dem parce que essence la Dakar dem dikk moom xam naa ne feeraay rek Dakar dem dikk yooyu mënatu la baax feeraay rek muy trois dem dikk trois dem dëkk trois dem ak dikk muy trois dikk dem yoo xam ne gars yi taal nañ ko Auchan yi taal nañ ko gis ngeen ko jamonoy mars ba ni booy doon duggee ci Auchan yi ni naan suñu alal la ren loolu xam naa ne jotutul am mais gars yi dañoo taal la génn parce que wóorul parce que gis nañ ne daaw ba gars yi euh, euh, duggee jël li ni euh, am na si ñenn ñoo xam ne dañ leen a localisé am ñenn si ñi nga xam ne dañ leen a ba seen kër jàpp leen comme li nga xam ne comme Ali ndeysaan dama koy masaw bu baax Ali jàmbaar la gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko tey si suba vraiment mu doon jàmbaar bu baax a baax a baax a baax nekkoon sama nattangoo sama matin mais ngoon maa bi Mor laa àndal ngoon maa bi Mor laa àndal Mor du bàyyi Mor da koy neexal ba mu neexal parce moom dafa mën la muy def Senghor moom da yàgg di toog di di soutenir